ومسكني صل من الفجار ومن ملال بما من جاري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen bokki taalibe yi yéen dëkkandoo yi di leen di mu jëm ci suñu dëkk bi tedd bi ci lu fi yëllut ndax borom dëkk bi su ngeen gisee bi ñu koy sëñ bi warab yi tudd ba ci digg Manding mu leen wóor ne dara nekku fi woon lu dul ab xàll ak rab leneen nekku fi woon mu fàkk ko ba mu set def fi dëkk bu sell bii tuddee ko turam bu sell bii bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak yonente bi sori lépp luy yàq jikko ak melo moo ko waraloon kon maa ngi leen di digal dëkk bii nu warmaal ko sàmm ko bu fi kenn def luy niru po bu fi kenn def luy niru mooy yàlla waxoon naa leen ci ne bu fi kenn naan bu fi kenn dorog bu fi kenn tëgg tama bu fi kenn sabar bu fi kenn fecc bu fi kenn kar képp koo xam nañ ne yii wax muy xeeti mooy yàlla ak xeeti po yaa ngi ko suy defati booy waraani ci fa saasa la ñuy defanteeg yow teg nañu ci suñu bakkan képp ku ko fi defati daal ne la wóor ne musiba ma lay dal du doon moom baati moom saayir lay doon si ne la wóor ne ca kaso ba nga jëm naka ngoogu nag loo xam ne lu dëggu si man la loo xam ne bëgg naa mu wóor leen ne tere gii ma koy tere tere inu teraanga laa ko tere tere inu sutura laa leen ko tere ku loolu soxalut nag ma nga ne da ci àddina ay ca booyee ko muy tey bu dee tey li fi juddoo dana judd tey lu jokk loolu rek laa leen bëgg a xamal dafa di daal lu bokk lu dëppoo wuute li nga xam ne dëkk bi bëgg na ko képp koo fi defati la mu ngi jël waatal naa la ci yàlla ne du jokk fasaa la jub képp koo xam ne ji nañ ne jot li jii ma la koy jot ni jot a a doon bu boobaa da nga xam ne sàmm ma fi bàyyi ma fi bàyyi ay yooyu la in uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu sëriñ bi nee na ma ngi ñaan kon mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp taxawaayu sëriñ Modou Lo bii ci taxaw lépp lu bon mu bëgg koo seetal ci dëkk bi taxawaayam boobu kenn ku nekk ci ñun na ci sant te am yéene ànd kook sëñ Modou di jox ko suñuy xel ñu jox ko suñuy xel ak sunuy bët ak suñuy taxawaay nekk ci wetam lépp ci wetam ànd koog moom ci liggéeyub Serigne Touba bu rëy bii Serigne bi nee na lii kët moom mënta ñàkk waaye nag lu jafe la nag kon ñun ñëpp sëriñ bi nee nañ jàppale sëñ Modou ndax benn liggéey bi rek la muy liggéeyal sëñ Touba te nee na njëriñul ñëpp la njëriñul lu baax ñépp la nee na noonu rek la demee sëriñ bi nee na na ko ñëpp déggee noonu ñi dëkk ci dëkk bi ku dëkk ci dëkk bi ak ak ku aju ci dëkk bi foo man di nekk sa yittee na nga ko def ci liggéeyu sëriñ Modou Lo bii te ànd ceeg moom. la cay kem kàttan ba dëkk bi li ci borom bëgg moom dara mënu koo téye waaye nag li nga ci war ñun ñu def ko te ànd koog sëñ Modou Lo mii sunu kem kàttan jërë ngeen jëf wa maskani salli min al fujjaari wa amnun ala alima in jaari